aleykum wa rahmatullahi taala barakaatu di nuyu njabootu maam Seydi El Hadji Malick Sy di nuyu islam li ma leen ñaan tuuti rek macha allah xam naa li ngeen ma yéene bi ma leen woo ngeen ñëw rek rafet na sama suñu sang bii toog bu jigéen def leen lu leen neex a Amina man damaa bëgg ni ngeen dégloo ma rek ma tëgg si ñaari kàddu ndox lu bari si kàttanu yàlla mu ngi guddi fi ñu jóge sori na te bu ñu jógee ci man it day nekk ñeneen sant naa leen gërëm naa leen ngeen déglu rek wax leen macha allah euh, di nuyu suñu président Cheikh Omar Sall bala ma dem suñu président Cheikh Omar Sall. di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla tawféex fu mu bëgg egg yàlla na ko fa yàlla yeggal ci barke yonent bi. di ci teg nag suñu président bi ma leen indil kere ba ma ko jëkkee dem gis la ma gis si moom damaa dil si waat si suñu président TBF waxtaan ak moom mu beral ma recevoir ma këram wax lu rafet wax lu neex a dégg encouragé ma ci jëmm ji toog macha allah te ñëpp bëgg nañu du nuyu sama doom di nuyu Marème Touré di nuyu Adja Ndiol Kanji di nuy nag sunu sëriñ maam Seydi El Hadji Malick sax laa dox na ma ngi ci saal bi muy ciy toog kon ngeen jéggal ma rek di nuyu nag yéen jigéen ñi maa ngi leen di nuyu li ma bëgg nag mooy tàppale rek si baaxu yàlla dégg naa si lu ne waaye ki ne ku ko xam ne xam ne si ndigal lay dox ci mbokkam la xaritam la sëriñam la ndax surtout si kontaan na si ñëw lool sàll ngaari yal na sa taxawaay bi yàgg yaa bëgg xayaa xam fi nga bëgg yóbbu sàmm sunu Sénégal xol bu sedd bu laab laa la ko ñaan yal na la fa yàlla yeggale sàll maa ngi yemale fii ah mi ngi si financement yi mi ngi si individuel yi mi ngi si projet yi loolu dama koy bàyyi sama doom Amina ndax mi ngi guddi dana leen leeral leen lépp ba mbënd bi di bu neexee yàlla. Ah, ak takku liggéey de maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu nag sama présidence alaaj Hadj Cheikh Omar bu baax a baax di nuyu Amina di nuyu nag ki nga xam ne mooy ma madame Ndiaye sama doom nga xam ne bu ma duggee sàmm moo ma fa dugal. ndax gis nga ku ne ku gërëmul ni doo gërëm yàlla suñu borom bi su ma xamee sàmm yow yaa ma fa yóbbu jiital ma ne ma yaay fekk ma Cees ma fekk la fa nga yóbbu ma sàmm. ma gis Amina mu yaru mi gis Cheikh Omar macha allah mu jullite mii li ma gis ci ñoom neex ma loolu moo ma tax ma dugg ci biir sàmm di la xamal ne la man fi mu nekk nii gumba rek laa foo leen ma woo ma teg falaay toog bu doon nag man ma dem financement dama koy lijjanti pour sama bopp individuel laay lijjanti man soxlawuma financement individuel lu ma am te du ci dimbali jaamu yàlla yàlla bu ma ko yàlla may lu ma xam te jullit du ko xam yàlla bu ma ko xam loo loolu moo ma tax di dugg ci financement ba ma taxawee nee naa la Cheikh Omar nga ne man man la man damaa am fu ma nekkoon dugg fa 2018 ba léegi gisuma sama bopp ñi ma àndal gisuñu seen bopp kon nag bu ma sama doom woowee ma ñëw sàmm mu leer ma ne sàmm gi naa fi gis sama bopp ñi ma àndal gis si seen bopp damay ñëw sàmm ragal féete day xañ a wërsëg maa ngi sàmm tey ba ëllëg ba lu ma ci góobee gar ko soppee Serigne Babacar yi ñoo ngi nii dañoo ñëw waxtaan ak yow dis la seen soxla nga jàppale leen ci gàmm gi ba namuñu dara yaa ngi dégg kon nag ñoo ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla jaamu Cheikh Omar li nga bëgg sa xol yaa ko xam yal na la ko yàlla defal dëkk bu sell bii nga ñëw lépp loo fi yóotu yal na ko yàlla defal la ko ci barke yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñuy ñaan yàlla bépp jigéen boo xam ne jël nga financement yàlla na la yàlla yombale li ñu koy fayee may gërëm sama grande nag Amina bu baax aha bu fàkki ne bu baax di sant nag sama rakk Njooro Kanji ndax Njooro maag moom buntu kër ak buntu kër la lu mu yendoo dinaa ko xam lu mu fanaanoo dinaa ko xam cëral na ma ci doomam kon xam naa njooro njooro xam na ma may ñaan ànd bi yàlla bu ko fi yàlla yemale ci barki yonent bi kon nag dal leen ak jàmm dal leen ak jàmm dal bu sedd guy macha allah. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di leen ziyaare bu baax a baax di nuyu Cheikh Omar sàll di nuyu sama sœur Amina di nuyu ñi mu àndal ñëpp di nuyu sama bàjjen Adja Fat Kiné Marème Touré sama sœur duma ko fàtte di leen présenté ku ñuy wax Cheikh Omar Sall mu représenté sàmm suñu senegal sàmm suñu Sénégal nag boo ko déggee ça veut li ko tax a jóg mooy dimbali doomu aadama li ko tax a jóg mooy dimbali jigéen mu fexe ba jigéen am autonome bu soxlaa lamb poosam fekk ko ca mu fexe ba jigéen bu faj euh, feebar faju bu doomam feebaree mu faj ko looloo tax a jóg Cheikh Oumar Sall bëgg a suqali Sénégal kon ñu ngi leen koy présenté bu baax a baax muy nit ku baax nag su ko neexoon toog Thiès lijjanti boppam wala mu lijjanti waa Thiès mais dama ni du daf ni du ma toog damay wër Sénégal parce que coono gi bari na mettit bi bari na kon damay wër senégal bépp jigéen fu mu ne dinaa ko fa fekk dimbali ko ma fexe ba mu am liggéey kon jaaraama Cheikh Oumar Sall mu ànd ak jigéen ju baax ju ñuy wax Amina soxo macha allah bu ma ko xamee Amina moo tax ndax moom dañoo liggéey ci lu bari mu jàpp ci sama loxo ni ma dama lay yóbbu ci Cheikh Omar Sall ñu liggéey parce que damaa xam sa ni nga mel ci liggéey ni nga mel ci développement dama koo xam kon dama bëgg nag nga ñëw ñu liggéey ci développement loolu moo ma yóbbu ci Cheikh Omar Sall kon Amina Cissokho maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ñaanal yàlla. di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér xam ne yéen su ngeen gudd looy yàlla mayee gudd fan ak wér kon bépp jigéen dootul sonn ci senegal vraiment merci beaucoup maa ngi gërëm ñépp di ziar ñëpp. asalaamaaleykum wa maa ngi nuyu ñëpp. di jiital ci nuyoo bi jigéen ñi ngi fi toog ñëpp ndax man jigéen ñi laa àndal. maa ngi nuyuwaat ñëpp di nuyuwaat jigéen ñi toog ci saal bi tey ndax man jigéen ñi laa àndal. may nuyu nag sama kilifa sama papa président Cheikh Oumar Sall di ko nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di ci teg délégation bi ñu àndal yëpp Cheikh Diouf ñëpp nuyu naa leen mama ki ne yéen ñëpp nuyu naa leen te dafa guddi bu ñu limee rek dañuy juum man nag damay ñëw ci sàmm suñu Sénégal sàmm sunu Sénégal association la bu tudd sàmm suñu Sénégal. président Cheikh Omar Sall moo ko jiite mu jiite sàmm sunu Sénégal ci ngor jiite ko ci yar jiite ko ci tee jiite ko ci lislaam jiite ko ci social jiite ko ci développement président Cheikh Omar Sall su ñuy wax ci sàmm sunu Sénégal dañuy sawar parce que bu ñu jiitaloon ci sàmm sunu Sénégal yan ñi lu ñu àttanul kon tey du ñu mën a ànd ak moom tey bay wër Sénégal sàmm sunu Sénégal xam nga mooy lan mi ngi yëngu ci développement. social ànd booloo nekk benn rafetal jikko yi rafetal xol yi ànd rafetal suñu àdduna yar sunu bopp yaraat sunuy doom yaraat entourage bi nga xamante ne mooy bii ñi nekk biir Sénégal ba ku nekk mën a yar sa bopp bu ëllëgee foo taxaw mën a sàmm sa bopp sàmm sunu Sénégal président Cheikh Omar Sall da koo teg ngir na nit ñi yaruwaat na nit ñi xamaat ñooy kan na nit ñi dellu ci seeni valeur nit ñi xam ne ñun ñoo moom suñu Sénégal suñu jikko buñ ko rafetalee sàmm suñu Sénégal rafet kooku mooy président Cheikh Omar Sall loolu la war ci biir sàmm suñu Sénégal sàmm suñu Sénégal nag day yëngu ci développement bu baax a baax a baax ci jigéen ñi ak góor ñi ak ñëpp mais ñun ji man moom jigéen ñi laa àndal tey kon ma leen di wax sàmm suñu Sénégal deful lu dul di xool jigéen ñi nga xamante ni ñu ngi ci gox goxaan yi nekk ci seen biir groupement yi nekk ci seen avec yi di sonn ci avec yi ñu gis avec ni mu méttee ci bopp nit ñi ngay leb di teg intérêt di ko lekk mu lay métti bu fay ba jotee nga xaw a dee nga dem ci banque yi ñu dagg sa bopp tegal la loo mënul tegal li nga xamante ni leer na ni ba ngay ci banque ba tàgg woo sa jëkkër te dangaa jël intérêt banque yenu banque ba sa bopp attanu ko sàmm sunu Sénégal loolu lay xeex sàmm sunu Sénégal mi ngi xeex jigéen ñi nga xamante ni dañuy jóg di dem di wuti te dañuy wuti duñ ko mën a am ñu leen di chantage di leen def loolu ñu mënul pour mën a am la ñu bëggoon sàmm suñu Sénégal loolu lay xeex sàmm suñu Sénégal mi ngi xeex li nga xamante ni néew néew gi doole yi niñ leen di seetaanee di xeex loo xamante ni ni ñuy néewalee xale yi doole ci digg Sénégal loolu la président Cheikh Omar Sall taxaw di ko xeex parce que nee na man su ma dimbalee jigéen rek kër yëpp dem man suba ma jigéen rek kër yëpp dem su ko neexoon mu toog ci rukkam jël femme yëpp yóbbu leen ci banque yi ne leen dem leen joxe leen caution di jox leen ay financement di ci wut lu mu am mais def na man soxlawuma banque képp ku jóg di jigéen muy boru avec yi di boru banque yi ku ko mën a bàyyi kaay ànd ak man ku mënta bàyyi boru banque bàyyi woo boru jigéen du ma mën a ànd ak yow ak boru avec yi parce que jigéen ñu sonn nañ ci avec yi jigéen ñu tas nañ ci seen kër yi seen jëkkër yi mu amuñu ñoom confiance ndax leb banque yu metti yi problème bu ne lay indi ci kër parce que jigéen ñuy dem banque général général yëpp seen jëkkër yóbbu ko dañuy dem ci sutura ñu seet leen ci sutura ñëw seen kër loqati seen i néeg xool la ñu am jox leen caution xool or ba ñu am ak yére yoo ñu am ak la ñu gaaraan seen armoire de seen lal yi président Cheikh Omar loolu lay xeex ci digg Sénégal mu ne damaa bëgg man jigéen ji may jël di ko appuyer pour mu dem du ma ko booleeg banque du ma ko booleeg kenn ku koy toroxal ëllëg damaa bëgg jigéen liggéey ak xel jigéen liggéey ak fulla ak fayda jigéen am autonome ba fu mu taxaw bu waxee benn ku góor waxee mu am fitu tontu ko parce que yaakaar naa jigéen bu la yir góor bu la yirfee jox la añ jox la reer jox la ndékki jëndal ay xal ay doomam yor ay doomam xoolal la sa bët fi ngay jaar kon amoo droit def leen ci kaw suuf tey nag bu góor yaa taxawee ci biir àdduna mu def fukk jigéen def juróom bu ëllëgee boo mënee wax góor dina la déglu waaye góor bu la tegee ci kër teg tànk rek la lay def ak lépp nag loo yaakaar boo lëggee su waxee doo tontu parce que yaakaar boobu nga yaakaar ci góor ba yow bu doo am benn njëriñ ci sa bopp moo tax doo am autonome loo bëgg da jafe te mënoo lijjën dara lu sotti ci àdduna ñu bëgg nag sàmm suñu Sénégal dafa woote yéen jigéen ji kaay leen ñu ànd développé wu ñu xeex ñàkk xeex ndóol xeex lépp loo xamante ne moo nekk ci àdduna sàmm suñu Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatulah waati waawoon maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di nuyu ñëpp nag ñu nekk biir Tiwaawan samay xalif samay maam samay sëriñ samay sang ñëpp maa ngi leen di nuyu macha allah foofu laay jiite ba pare di nuyu président Cheikh Omar Sall dama koy waxaat bu baax suñu kilifa gu baax gi ñu àndal di nuyu délégation bu macha allah bu forte bi mu àndal délégation bu jàmbaar bi mu àndal délégation bi nga xam ne kenn ku ci nekk fa nga nekk yaa ngi bay sa waar na mu waree tubarkàlla nuyu naa leen yéen ñëpp di jël nuyoo bi nag di ko teg ci sunu doyen euh, monsieur Cheikh Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di ko nga jottalil ñu ko ñëpp ñu àndal nag bàyyiwuñu kenn kenn kenn ñu ngi leen di jox suñu loxo xol leen wax ne kontaan nañu fu nekk nit jógee na fa tey pour ñëw fekk si financement bi ñuy jox waa Tiwaawoon di ko teg ci loxo Adja Fatou Kiné Gueye Mbacke macha allah. di jël nuyoo jigéen ñi di ko jox Adja Fatou Kiné Gueye Mbacké ñu ngi koy nuyu bu baax di la jaajëfal Adja Fatou ba nga jàppee sàmm ba tey bàyyi woo toujours sa kàddu démb mooy sa kàddu tey sàmm suñu Sénégal ngay wax développement ngay wax endogène macha allah ne président foo nekk maa nga fa su ma sañoon tey politique dama ciy ànd ak yow ba mu jeex takk loo woote ma fekk si la si ba mu jeex kon foo nekk maa nga fa yow yaa wax lii président Cheikh Omar Sall ñu fekkee ko macha allah di nuyu marim Touré ñu ngi koy nuyu jaarale ko ci sama sœur bii nga xam ne moo ko indi sàmm muy Ndey sàll di nuyu Ndioro Kandji ma grande sœur Ndioro yaakaar naa ne ba ñuy liggéey du tey njooro Kandji ba ñuy liggéey Kandji soose du tey démb ak bërki démb may takk ay 30 millions di ko jox mu koy liggéey ba mu baax mu dima ko delloosi kon tey su ma ñëwaatee ba dugalaat ko sàmm mu tourné waat ci deux mois mu liggéey lu am njariñ lii kon dama koy gërëm di ko sant gërëm naa leen yéen ñëpp sant leen. di leen wax ne leen nag sàmm lenn moo ko tax a jóg développement endogène cela veut dire développement boo xam ne ci suuf lay jóge jëm ci kaw ci gi gën a ñàkk nag jëm ba ci ki am sàmm xamul ku am sàmm xam nga lu mu xam ku nangoo liggéey ku nangoo daan sa doole. ku nangoo sonn sàmm kooku lay fekk nga toog mu jàppale la mu appuyer la financer la former la encadrer la teg ci yow nag loxo sàmm loolu lay def yaakaar naa sunu naataangoo faama wax na ko dafay fekk fu dara nekkul mu def fa dara loolu moo tax a jug sàmm sunu Sénégal ba ñu ne présidente bu fi nekk du ñëpp ñooy am financement mais nañu invité ñëpp ñu ñëw ba nga xam ne information bi kenn ku ci nekk di nga ko jot so soo ko jotee it di nga dellu si duggaat sàmm ndax nag sa intérêt bopp moo fa nekk du sunu intérêt ñun ndax président lii faama wax rek tey ajaa Fatou gay Mbacké wax ko muy lan munoon naa jël xaalisam damm ko ci poosam ku ne xam na ne tubarkàlla nit lu mu yor rek xaj na ci boppam ak njabootam waaye dafa ne li ma yor mu néew ak mu bëri ñëw leen ma bokk ko bàyyiwuma nag fenn fu jigéen nekk di sénégalais rek fu jeune nekk di sénégalais rek pare naa pour dimbali la li may njëkk def mooy ma fexe def la nit ku nite suñ nee nit nit ku nite éveiller conscience conscience yi ci boppam la président di éveiller yee la ba nga xam fi ngay teg sa tànk soo dee góor doo jënd dee ndax jënd dee mënul weesu nga ñëw génne sa quatre cent mille cinq cent mille dugg ci gaal gi yow géej gi ba ko yàlla di sàkk xamoo profondeur am xamoo largeur am xamoo lan la dëxañ ci biir nga ñëw jël sa 400000 dugal ko ci di jënd dee. mu ne jeunesse bi dinaa leen yee ba ngeen yeewu xam ne mën nga toog ci sa biir réew tekk fi jariñ fi jariñu fi suuf saa ngi fi yaatu ba bëgg a dee am na ndox tubarkàll la soo dikkee dinaa la puuse yee la jàppale la former la nga liggéey jariñu ci sa biir dëkk. mu jóge ci góor ñi ñëw ci jigéen ñi ne femme de ménage bu ma fekk mu toog jàppoo ci dara ma fexe ba formé la selon fa sama formation sama capacité lu mu jar rek jaral na ma ko fa mu yem su dee formation céréale président daf la koy may gratuit su dee pâtisserie président lu mu jar ku bu mu jar ci formatrice bi day ñëw ba Tiwaawoon formé leen ci seen formation quartier ci seeni groupement ba ngeen mokkal mu jël matière première jox leen ne leen maa leen lebal liggéey leen def ci seeni biir def ci seen bopp yéen a ko moom nga ñëw nga ne ko li nga ma jox ci coût doyuma mu ne la loo soxla ma financé la toujours nga gën a yaatal entreprise bi toog ci sa kër mën a liggéey mën a demal sa bopp président loolu la woote yaakaar naa loolu li ci jiitu mooy fexe ba conscience yëpp éveillé wu soog a former nit ki nag soog ko encadré financé ko mu jëm ci kanam kon yaakaar naa loolu kenn ku ci nekk yaakaar naa ca vol ca côté ba nga nekk war ngaa mën a jàpp ci loolu ba mu jëm kanam moo tax mu ne invité leen képp ku nekk biir Tiwaawoon même su amul financement tey suba dina ko am même su amul formation tey suba dina ko am waaye na information bi tas ba ñëpp mën cee jot ndax nit day dégg lii mësuma ko dégg mësuma ko xam lu tax yaataluñ ko lu tax tasuñu ko moo waral mu ne nañ ko tas ba mu yaatu tubarkàlla macha allah. ñu ñëw nag ci Adja Fatou Gueye Mbacké moom ak ay groupement wam Adja Fatou Gueye dafa bougé ah d'accord waa loolu mën nañ xaar tuuti mu eggale ko d'accord mm, ñu ñu delluwaat ci kon beneen point bi mooy euh, présidence ku ne développement ma Badou Mbaw ba mu jeex di nga ne politique sans dévelop sans politique développement mënul dem mm-hmm. mais nag développement la ñu wax quatre-vingt-dix-neuf pour cent développement la un pour cent moo ciy politique mais kan la ñuy politigal ki bëgg réewam ki fas yi yéenee taxaw pour changer réewam ki fas yi ne taxaw dindi fi jafe-jafe askan bi surtout ñun jigéen ñi nga xam ne ñooy yaay ñoo yore ay doom muy suñu feebaree mën a am l'accès à l'hôpital mën a faju ñu yombalal ñu li nga xam ne mooy ticket ñu mën a gis médecin yi mën a faju normal ñu soog ñoo laaj lan mooy xaalis ñu soog a xam lan mooy weccet président loolu la bëgg képp koo xam ne politicien moo yaa ngi fi jublu ci moom mu ne la lii laa bëgg ku jur doom doom ji mën a jàngi jàng diineem moo xam catholique bi moo xam jullit bi moo xam nasaraan bi xale yépp mën a dem jàngi am këyitu juddu mën a jàngi président fexe ba panier ménagère bi mën a oyof muy bay dundee soble bi ñu am ko ci prix bu yomb dugub bi ñu am ko ci prix bu yomb mboq bi ñu mën ko am ci prix bu yomb ceeb bi ñu am ko ci prix bu yomb ba kenn ku ci nekk loo am di nga dund selon tes moyens di nga dundee loolu nga am président loolu lay xeex ne képp ku ma mën a jàppale ci lii épouser sama programme pare naa pour ànd ak yow ne samay jigéen kii mooy candidat bu baax bi waxuma campagne de nee na jigéen ñi lànk leen bañ leen bu leen kenn mobiliser loo di leen yeb ci kaar di leen dugal di leen exposer ci naaj yi ngeen di taxaw ci naaj bi ba seen i tension di monter di guddee ci àll bi ba seen di tas jigéen ñu bari tey seen sëy na xam nga lu ko waral guddee jigéen mënul bàyyi boroom këram ci biir këram bàyyi njabootam ci biir këram nekk àll ba une heure deux heures du matin xel nanguwu ko président ne lank leen bañ leen nit mën naa politique mais politique bu set politique bu sell mooy lan kii programme bii la tëral programme bi ànd naa ci mais nañu am ñu mel ni sàmm suñu Sénégal ñu taxaw ne ko nag programme bii nga ànd dañ koy xaatim bind ko bi soo fi toogee nga doxal ko su vote ji jotee nga jug suba teel sangu ba set dem vote ji ñëw toog sa kër xaar résultat ana lan mooy ndeyu campagne président dafa ne jigéen ñi soumettre leen seen ginnaaw jëkkër dafa ne jigéen ñi déggal leen seeni boroom kër toog leen ngeen sëy waaye toog leen seen biir kër tamit ngeen di liggéey yar leen seen njaboot ndax jigéen mënul nekk ci biti 7 ci suba ba 8 ci ngoon nga ne yaa ngi yar nga ne yaa ngi éduqué mënul nekk mën nga toog ci sa biir kër di liggéey ci sa biir kër sa familiale bii ñu teg fi ñu di ko di ko fay saleer femme ménagère yi toog ci biir këram yore yore certificat mariage am am ñaari doom jëm juróom ñaari doom ñu ko koy fay ni ñu koy jox yelloowuñ ko jigéen bi toog ci biir këram di sëy te yàlla moo tax yàlla sant ko sëy mu toog di sëy di jur ay doomam macha allah kooku mooy yelloo te amul ci lu mu jàpp ku ne xam ne ne fi mu toll nii fonctionnaire ci jigéen néew na. kon jigéen boobu toog ci biir këram war naa mën a am bourse familiale ñu di ko ko fay muy salaire ñu wëlbati ko muy salaire ñëpp am ak am ci accès soo toogee sa biir kër doo rang demoo fenn ci sa portable lay ñëw parce que suñ la bëggee identifier état su la soxla woon tey doo tëdd ci lal kon suñ la bëggee fay tey doo tëdd ci lal te fayuñu la pourquoi pas ngeen jox ci yéen ñëpp mën a gis sa doom xam lu muy fa muy teg tànkam mën a jàngi nga mën a yar toppatoo sa borom kër kër gi ne ñooy divorce yi wàññeeku. njaboot gi mën a dal pourquoi pas ku xiif lekk balaa kenn xiif lekk balaa kenn mar naan ñëpp dal stabilité le président Cheikh Omar Sall di woote lii mooy sunu tànk tey biir Tiwaawoon macha allah président nag beral loxo waa Tiwaawoon nee naa ko li ko baddu di wax muy bañ da nga leen beral loxo waaye président Tiwaawoon jëm ngaay macha allah beral na leen loxo ndax soo waxee mu ne fii sama kër la. fii sama kër baay la sëñ Babacar mooy sama baay maam Alaaji Malick mooy sama maam Cheikh Omar Foutiyou Tall mooy sama maam macha allah kon fii sama kër la dugg nañu ngaay jox groupement yi 6 million jox individuel yi 6 millions 600 même pas 2 mois 3 mois mu ñëwaat tey li nga xam ne nii mooy ci waawoon financé ci mbayu Tiwaawoon soble ba bépp jigéen boo xam ne nii tey bokk nga mouvement sàmm suñu Sénégal wala góor bu bokk mouvement sàmm suñu Sénégal bés bu soble boobu ñoree am nga ci accès su jarul fanweer jar ñeen fukk ñëw ba ci sa biir kër dama ne kilo bi su jarul fanweer lu mu cher cher ci ñeen fukk lay taxaw nga mën cee jot di ci jariñu kon xam nga ne suñ jaayee kilo soble 1000 francs dañ ñoo yàpp fan lañ ko teg ñun dugub ñun ñi ko bayoon daaw ñun waa sàmm suñu Sénégal ñu ngi jënd dugub ci suñu biir trois cent cinquante mboq ñu ngi koy jënd trois cent te tey dugub a ngi jar six cent cinq cent cinquante ñun ñoo ko bay képp ku am carte membre du sàmm moom le président wax da ngeen koy jiital gis nga damay wax jigéen ñi da ngeen di ñeme fi ngeen nekk développement le président woote. damaa bëggoon Adja Fatou Gueye Mbacke tey li sa jigéen ñi def rafetlu ma ko bàyyi ba la jour ji nga ñëw soo ko jënd carte du yoon carte bi dafa waroon a jiitu. ngeen jënd ko di ko liggéey yéen moom xaalis bi xaalis bi yéen a ko moom li faama wax kenn jaay loowu leen carte delloo ñu ko sàmm naxewul naxe bi nag bari na waaye sàmm naxewul sàmm laajul kenn benn dërëm yàlla seede na ko dama leen ndax fii ngeen toog dégg ngeen président bu ne leen jox leen ma benn dërëm sàmm assurance lay laaj ouverture compte boobu ci groupement sax Marème Touré la mais sàmm assurance lay laaj mooy assurance su groupement Marème Touré bi ñoom dinañu ñëw ñoom sax joxaguñ seen bopp mais ñoom Marème Touré deux groupes am yëpp joxe nañ ko. mais ñoom Adja Fatou Gueye ñëwaguñu ndax dañuy toog ba le jour J ñun ba bi ñuy indi financement xam nga assurance boobu lu muy wundu nit ku nekk kuy dund ku nekk yàlla na yéex moom moo sa bakkan. ngay nooyi mën na la mën naa def lu ko neex bis boo fi jógee topp ñu sa jëkkër topp ñu sa njaboot topp ñu kenn ñu ne la. sipel assurance ñu jox ko assureur bi bis boo fi jógee président bal na la bor bi du caution du frais de gestion du frais de dossier carte bi xaalis la c'est des million président defar ko groupement bi nu mu toll mu ne la jël leen carte bi ngeen jaay ko lu mu gën a néew néew néew 1000 francs moo ci gën a néew am na ñoo xam ne man samay groupement carte bi junni junni lañ ko jaay ñun ñoo financé suñu bopp fi mu toll nii ñu ngi leblante ci suñu biir ay 100000 100000 ci suñu biir ndax dèjà ñu ko jaayee am nañu 500000 mais fi ñu amee 500000 rek jox nañ ko kenn ku ci nekk yóbbaale nga fukki junni fukki junni boobu sooy ñëwaat weer wu jot nga indi junni ak ñaar téeméer junni ak ñaar ba muy juróomi weer ñu lebal keneen. tey man mi ci bokk rek tey déjà cotisé naa lu mat ñaari atu yàlla sama 10 000 mu ngi ci biir kees boo xaw ma sama 20 000 waa su ko 20 personnes defee ñaata xaalis la. 1000 francs boobu mu ne yéen ko moom soo leen nekkee ñaar téeméeri nit am ngeen ñaar fukki junni ñaar fukki junni boobu jël leen ko ngeen dolli ko ci seen biir keesu avec yi ngeen di nattee ngeen gën koo wëlbati xaar ma maa ngi ñëw su ma ñëwee ma xool fi ngeen tolloon ak fi ngeen yem tey ma gën leen a poussé su ma xoolu lan moo lan moo xam ne doxul ma fexe bu dox fan la cangee ma càngar bi ko président loolu la woote wootewul leneen ñu toog ne ñëw ci financement tey su ja tey su jaaroon yoon suñu guddeewul dañoo ànd ak suñu formateur daf leen a waroon a fekk former leen mais actuellement dina leen fekk ba ci seen i groupement former leen mais dañ leen di financer ba beneen yoon ngeen jàpp jour ñu former leen incha allahu taala. kon loolu moo tax a jug sàmm loolu moo ñu tax a jóg ñun amul naxe ni ko ni ko maama di waxee amul neexale nañu ànd liggéey. sunu réew mi président nee na kenn duñu ko defaral waa États-Unis duñu jógee fa di ñu ko defaral waa waa France duñu jógee fa féete Tiwaawoon tuuti mm, li ma leen di wax rek li koy firndeel mooy financement bi dafa dugg Tiwaawoon financé fa tool ay tool mm. ba ngaay mu financé fa ay tool tool yoo xam ne tool yi xaal mm. toolu dugub toolu mboq waaye tey dafa financé toolu soble yaakaar naa soxla naa suñu ingénieur en agronome mu tàllal loxoom. moo xam li may wax ñu naan seede bañ na dem si yàlla si te yaakaar naa njooro mm, njooro euh, kii la ci mu ngi noonu kooku mooy suñu ingénieur en agronome dafa financé dafa <laughs> financé na tool yi 6 million ba nga xam ne képp ku nekk sàmm rek nee naa la di nga am soble lu mu cher cher cher weeri dërëm képp ku nekk membre sàmm bis bu lii yàlla defee mu ñor te barkeel ñaan leen ko yéen ñëpp ci barki Seydi Hadji Malick ci barki Serigne Babacar si ñaan leen ko bu baax a baax a baax a baax ñu egg ci kilo soble ñaar fukki dërëm ñu delluwaat démb ak bërki démb ci seeni barke maam ba tax ne tool yooyu financé ko financé na ko 6 millions la financé tool yooyu te yaakaar naa ñu ngi ci deuxième tranche bi ki nga xam ne mooy euh, monsieur Diop dinañ ko jox deuxième tranche am un million sept cent quatre-vingt mille francs par palier lañ koy def fu mu egg rek ci mbay mi ñu financé loolu fu mu egg ci mbay mi ñu financé loolu ba 6 millions yi mag incha allahu taala ñu ñëw ci Adja Fatou Gueye Mbacke président nee na su ñëpp gëmmoon mu jox la financement bi ndax sa taxawaay biir sàmm su ñëpp gëmmoon mu jëkkati financement bi teg ko ci sa loxo ak ni mu toll ndax sa taxawaay biir sàmm ndax sa yërmande ci moom ndax sa ñeewant ci moom doom nga ko xoolee xoolee woo ko rakk xoolee woo ko lenn doom nga ko xoolee kon mu ne azaka yéeneem la indi nga démarré ci say groupement moo xam cinquante personnes la moo xam loo boot nga teg ci seen loxo juróomi weer ñu liggéey mu du gàttuwaawoon dama ne li ngeen joxe assurance di ngeen ci am financement ñetti yoon dinañ fi duggaat te kenn dootul joxate assurance te yal na yéex yal nañ ko fekkee ba ñu màgget ba raamaan waaye ku fi jóge baal nañ la ci assurance boobu ñëw na ci sa groupement ci yow ñetti million jox na sa groupement 3 millions Adja Fatou Gueye Mbacké mu ñëw ci groupement Marème Touré Marème Touré boobu ba tey la luy sàmm luy xale yi jeunesse su yiy judd ci ginnaaw mbay mu ngi ci di góor góorlu di topp di dem di ñëw bëriki dem bi président naan parrainé leen sàmm dafa ne pare parrainé leen sàmm man ma xool programme bi ma tëral bëgg ko ku ko mën a épouser ki nga wax mooy sa leader di nu mu nu mu tuntu Diop si Mbeng Diagne si Mbeng mu ne ki nga xam ne mooy sa leader muy Diagne si Mbeng su paree pour épouser li nga xam ne mooy sama programme muy ku feebar am l'accès à l'hôpital mën a faju mën a la def li nga bëgg a def yépp am fitu dem hôpital soo fi toogee ma jàppale la président Diagne Sy Mbengue bis ki mu bëgg wala ku mu àndal su paree pour épouser programme sàmm suñu Sénégal président pare na pour ànd ak moom la wax ku feebar mën a faju xale yi nañu jàngi pañi ménagère bi na oyof jigéen bu fi nekk na nga fexe toog ci sa biir kër nga wutal ko salaire mu mën a sëy gérer biir këram jigéen bu toog ci biir néegam am ñaari doom am certificat de mariage dafa ne président fu bu fi toog wutal ko salaire bu ko xeeb de 60 000 à 80 000 ba 100 000 francs jigéen bi mën a toog ci biir këram pour mën a def lii président nee na xoolu xaar xooluma xaj xooluma seen Sénégal moo ma ñor dara ñoruma wutuma poste parewuma pour nekk président parewuma pour nekk directeur général parewuma pour nekk dara yàlla teral na ma dafay wax ci biir waxam sant leen ma yàlla amul lu ma yàlla mayul kon wutuma dara dama bëgg jigéen ñi góor ñi ku nekk demal sa bopp mënal sa bopp jeune bi jeunes yi ñuy yee leen jigéen ñu fexe def ci ñoom formation yu dëgër ñu mën a demal seen bopp ba ñu mën a toog seen biir kër di sëy ci barke Seydi Hadji Malick lii la lii la président wax kon ku pare rek pare na pour ànd ak yow ñu ñëw ci euh, ki nga xam ne mooy Marème Touré Marème Touré groupement am jox nañ ko 2 millions mu séddale groupement am fay ko ci juróomi weer yow Ndioro Kandji su ñëpp gëmmee ma jël li ci poosu président jël li ci poosu sàmm jël li ci poosu Adja Fatou Gueye Mbacke sama yaay jox la ko yow ba may ànd ak yow du tey yow ba ma lay financé du tey ba may jël xaalis di la ko jox ngay jox say jigéen du tey dama ne damay jël ci pochetu Adja Fatou Gueye jël ci poosu président jël xaalisu sàmm ñu fi toog ñëpp ma rocci seen xaalis jox la ko président nee na mu ngi tàmbalee ci sa jigéen ñi million ñu démarré ci kàttanu yàlla incha allahu taala bis buy duggaat fii dafa bëgg groupement bu ci nekk romb million di dem ci kàttanu yàlla incha allahu taala yàlla yàlla barkeel lépp ci darajay nabil Moustapha alayhi salaatu wasalaam. maa ngi nuyu Seydil Hadji Malick di ko ko jox. jàllale ko ci Alfayda Mayoro jàllale ko ci Cheikh Oumar Fouti jàllale ko ci Mouhamadul Ghali yóbbu ko ci Sidratul Muntaha fi yàlla waxee ma zaagal wa ma tara yàlla ko yàlla yi ñuy xoolante na ñu yàlla may jàmm may ñu salaam may ñu mucc mais ñu mucc la sàmm suñu Sénégal moo tudd sa soxna su sell si suñu Sénégal tur su sell si moom la ko sàmm suñu Sénégal bañ koy sos su sell lañ ko tudde su soxna si sellee dëkk bi ñëpp taxe su soxna si sellee xiif jóge fii musoxla si sonn kenn dootu jooyati musoxla si sell ñàkk jóge fi loo tax yàlla subhaanahu wa ba mu yónnee yoon yàlla muhammad góor bu ne ñëw na jox ko loxo def ko lu ñuy wax almubaaya waaye ba jigéen ñi ñëwee yàlla dafa bañ teg fa juróom-ñetti condition neel muhammad neel jigéen ñi bu ñu nangoo juróom-ñetti ñii ma nangu seen nekk ni jullit man la tax ma ji diggu góor ñi parce que góor dadul dara parce que góor dadul dara développement réew mi président na bu bu fii bu fi ay góor dong desoon benn jigéen nekk fi réew mi day gent parce que góor la dul développement góor ko consommateur la loolu la yàlla dogal waaye bu góor ñëpp deewee góor ñëpp laa bu deewee jigéen ñi des fi jigéen ñi dee dee ñu am doom parce que yàlla joxe na si mi misaal jigéen bu am doom te amul jëkkër waaye yàlla joxul benn misaal fu góor amee doom te amul jëkkër kon yàlla mu ngi wane di développement ci biir jigéen kon Sénégal gi sàmm suñu mun ta ànd ak ku xamul loolu munta ànd ak ku xamul valeur jigéen munta àndal ku dul teteral jigéen munta àndal ku dul teg jigéen fi ko yàlla teg te mooy sutura mooy dimbale mooy jéggale mooy dooleel kooku mooy jigéen ku mun a ànd ak loolu ci jigéen ñu Sénégal sàmm a ànd ak yow te loolu yomb na milliards yi ñu fiy tasaare guddeeg bëccëg programme yi ñu teg guddeeg bëccëg benn programme buñ ko jaayalee ci yoon jigéen ñëpp génn ci dóoru benn laa wax bourse socio sociale yi soxla si Amina tudd sànq jigéen ñi fiy liggéey ci Sénégal mot ñu cinq cent jigéen yi fi am jëkkër ci Sénégal mot ñu dix millions mun na leen fay buñ leen fay dañ ko bëggul européens yi ñu ngi fay seeni sëmër nañu di jàppee jigéen ñi ay sëmër di liggéey ngeen fay lan mooy nga dem au hôpital ñu la hôpital bi c'est un hôpital public ñu ngi lay laaj di dix mille ak vingt mille mais da dem dama ci clinique ba lan mooy nga dem école muy école publique ñu ne la sa doom dafa war a inscrire da ngay jox copain bi da dama ci ci privé ba loolu la fi sàmm bëgg a jëlee Sénégal ñëpp war a yeewu gàddu seen i saak dem jàng te dërëm doo ko joxe parce que ñun ñoo ko moom ñëpp ko war a fajoo ci hôpitaux yi publics yi ci poste de santé yi te dërëm doo ko joxe. waaw ku mu ne ne man césarienne dama koy def gratuite ki ëmb dem ab accouchement nga nga di ko fa fayal xel na mu césarienne moo moo moo gi gën a cher accouchement normal soo ko mu mënee baale kay war ngaa mu mën mën a ba baale accouchement kon lan moo wundu ci ginnaaw césarienne bi est-ce que baale la est-ce que baale la loolu mooy conscientisation conscientisation sàmm di wax loolu la may xoolal lan moo tax ñu may la ko est-ce que dañ la ko may walla yaa ko moom mayn bi lan la kii ne bu xale bi juddoo ba mu am juróomi at feebar bu mu am poste santé moo dee di dem gratuit la waaw tool bi jur xare bi te mënoo ko te tenir juróom-ñeenti weer loolu lu muy tekki waaw tool bi di jur xare bi bu mu deewee rek tool bi mooy yaay ji soo mënee ne meññant bi mun naa ko duggal ci chambre froide denc ko juróom benn at waaw tool bi yow munoo ci def engrais munoo ko roose munoo ko may mu naan munoo ko may ñoo ñoo ñoo akki nii mais da ngay fet jigéen ñi yeewu leen wote leen ku leen neex waaye bu leen kenn teg ci naaj bu tàng bi ngeen di bàyyi seen i kër yàlla yéen la dénk kër yi yàlla yéen la dénk njaboot gi yàlla yéen la dénk dénk bakkan yi ji kër gu jigéen amul kër gi day gent kon sàmm bu taxawee ne ne dafay dooleel jigéen doolu jigéen dund gi lay dooleel yàlla moo ko sant muy toppandoo yàlla ci loolu ba yàlla sàkkee sunu maamu aadama amul dund xamul dara ba mu buggee aadama xam dafa fàkk ci wetam sàkk ci lu ñu lu ñu naan ji ji jigéen ba aadama gis-gisee loolu ci ci la door a xam la lan mooy nit ci la door a xam moom war naa bëgg dara ci door xam ni war naa mën a dund waaye daa jàpp boppam comme iblis comme jibril comme leneen te bokk ñu dund kon jigéen da ngeen am valeur te yéenay jox góor valeur valeur xoo xool leen ko rek ci góoru célibataire ak góor bu am xool leen ko rek célibataire yi tekkuñ dara su suñu soloo du ñu set bu ñu sangoo dañuy gën tilip fu ñu toog da ngay yàqati ne nañ fa yéen jigéen ñi yéen la sàmm di tàllal loxo su ngeen amee jom te yàlla may na leen jom suuxat leen ko ci seen biir ngeen ànd ak sàmm développer seen bopp développer seen gox ñëwuma Tiwaawan di fi dara ñaan moo ko yàlla yàlla na ci yàlla musal keréewuma sàmm suñu Sénégal di si wut dara ñaan moo ko yàlla yàlla na ci yàlla musal sàmm wutul xaalis sàmm wutul bénéfice sàmm bénéfice yu dund lay wut moo tax munta ànd ak ku dul li liggéey munta ànd ak ku gëmul boppam munta ànd ak ku buggul boppam lii dong mooy sàmm suñu Sénégal kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wax ji mënuma ko guddal parce que fii ma toog sama kër la Tiwaawan mun naa wax ni asalaamaaleykum